dèjà tey ji base moom mun naa ne kuréel la boo xamante ne bii dañ ko defoon sànc ko pour indi ndimbal ci xeex ndóol ci banlieue bi bi ñuy laata def ñuy def loolu dañoo xalaat ne ci lan lañ mën a jaar bi ñu xoolee ne suñu yaay yi di jaay taabal ci bopp koñ xool xam nañ ne suñu yaay yaa ngi fa fukki at ñaar fukki at ñeent fukki bu doxul woon duñ ko def ñoom la moo nekkoon seen problème mooy ñu xool na lañ ko yaatalee na lañ ko moderniser basif loolu la indi comme innovation ñu indi ñëw defar ko rafetal ko yaatal ko pour permettre aussi créer benn attirance boo subaa koo xam ne dafa am diplôme amul woon xëy dina mën a ñeme ñëw liggéey foofu. parce que affaire bi dafa nice parce que tey bu ngeen jëlee ñi yore table yi équipement bi ak tablier bi ak li ngay sol ak outil digital bi war a ñëw suba tey kuñ ko jox boo amoon master sax bu ñu ñëwee jox la da nga ko koy def. parce que amutoo complexe booy nourrir. ci tol mu toll heure bi may wax yow tey am nañu juróom fukki ak ñaar ndaw yoo xamante ni ñu ngi si liggéey entre dix huit et trente ngi koy expérimenté ñu ngi si semence Géejawaay bi nga fa la projet bi sosoo ci ay jaaykatu légumes jaaykatu ndugg lañu lañu la ñu expérimenté projet bi bi ñuy démarré di ko expérimenté ça faisait huit tabliers avant loolu sax njëkk nañ teg plateforme en ligne bi mun naa ne tey bu ñuy wax waxu njaay en ligne ñun ñu ko njëkk sos ci Sénégal ci la bokk man mii bitim réew laa nekkoon lépp laa bàyyi ñibbisi sama kër ak sama lépp laa bàyyi ñëw bi ma ñëwee dama ñëw bi ma bi may tàmbali sax ñëpp dañ ne woon dama dof mais aujourd'hui l'histoire m'a donné raison par rapport à certaines donc euh, c' est simple ça. financement doom bu nekk ñu ngi ko jox million quatre cent cinquante mille c' est à million ak genn wàll bu manqué fukki junni financement bi nag ñëpp gis nañ ñu doon ñu doon demee fii ci réew mi dañu lay jox ah, wax nañ ko sànq ñu jox la financement nga jël avion wala nga jël gaal dem tukki wala nga def ci leneen ba affaire bi nax saay sa loxo bu boobaa problème am état bi ñaata milliards la fi def te doxul. te jii nag ñun dañoo indi benn innovation bu ñuy financé ndaw mi duñ ko jox xaalis activité bi ci boppam lañ koy tegal fekk ñu tàggat ko former ko won ko yoon bi. te loolu tamit même bu ñu ko joxee activité bi tamit duñ ko bàyyi mu dem dañ koy tette pendant ñaari at ba gën a dëgër. ndaw bi daal premier critère moom mooy il faut que mu nekk mu am fukki at ak juróom-ñett euh, at ak juróom loolu mooy échelle loolu tamit ñu ngi ci privilégié jigéen ñi parce que loolu ci cadre boobu xam na ne tey jigéen ñoo gën a sax bari te ñooñu tamit ñoom la loolu ñooñu la pauvreté bi gën a laal ak chômage bi. moo tax ñu prioriser tey jii bu ngeen xoolee espace Ndougu quatre-vingt-cinq à quatre-vingt-dix pour cent ay jigéen lañ donc loolu ci ci lañ gën def def accent bi. waaw taxawaayu ministère bi mooy ne moom euh, fépp foo xamante ne euh, dañ fay yëngatu ci ay euh, initiative yoo xamante ne day promouvoir li nga xam ne mooy économie sociale et solidaire bu ñuy wax économie sociale et solidaire mooy fekk population yi fa ñu dëkk ci seeni gox-goxaat. jàppale leen ba ñu am si lu ñuy yëngatu am ay revenu mun a yoreel seen bopp mun a gérer seen bopp mais aussi ñu contribuer si développement économique seen localité ba ñu nekk donc toujours bu ñu gisee initiative yu mel nii yu mel ni comme espace ndogu nga xamante ne au delà da nga xamante ne mooy euh, kii yore tablier bi am na dañuy accompagner waale producteur bi dina am fu mu jaayee ay production parce que généralement yaa ngi sa tool ngay jaay ngay bay mais doo gis ku ko jënd mais lii mise en relation boobu nga xamante ne moom la projet bi di def dafa nekk un modèle économique bu intéressant boo xamante ne ñun moom euh, yooyu la ñuy rechercher pour pouvoir les capitaliser et les accompagner pour que ñu mun a étendre surtout l'étendue du territoire. ministère lu mu mën mooy euh, renforcer. Euh, jeunes yi ñu toog jeunes yi ñu toog si pays bi ñuy jël gaal donc modèle de financement yi il faut que ñu réfléchiraat que ba nga xamante ne dafay nekk ay modèle de financement yoo xamante ne lu mu mun a wàññi détournement d' objectif bi dana ko wàññi parce que loolu mooy toujours problème bi xale yi bu dee da am soxla bu jàmp bu teew bu ñu la joxee xaalis da koy dugal si si si kii bi si soxla boobu donc bu dee yow sa xel dem jël gaal gi la nekk duwal sa donc sensibilisation boobu daf ñu war ñun en tant que ministère qui doivent accompagner euh, l'inclusion sociale et l'inclusion financière donc daf ñuy war donc euh, ñu contribuer participer si sensibilisation boobu ak information yi mais à travers les collectivités territoriales yi nga xamante ne ñooy suñu porte d'entrée. bien sûr ça va de pair avec les modèles économiques qu'on de euh, yu mel nii suñ ko promouvoir un peu partout. je crois moom laa wax sànq y aura moins de détournement tey dañu sant yàlla bu baax parce que projet la boo xam ni waa IMSEC dañ ko yàgg gëm dañu gëm ni booy war nañ jàppale jigéen ñi waaye war nañ jàppale aussi ndaw ñi moo tax IMSEC bi ñu gisee promoteur bi mu ñëwee bureau ma toog ma jël ko man ak directeur du crédit ñu waxtaan waxtaan bu yàgg waxtaan bu yàgg ñu ne ko ni projet financement yi daan demee vu le caractère risqué de la sible il faut ñu changer ko ñu toog def nañ ci réunion même ak Annabelle Enabel ñoom ak kii plusieurs rencontres ñu def ba gëm ni jeunes yi boo leen di financé bu leen jox xaalis tàggat leen jox leen activité ak li ñu war a jumtukaay yu ñu war a liggéey defe naa ni noonu la ñu def jeunes yi d'accord ci loolu ñu ne ñun pare nañu pour l'instant dem nañ ci ñaari ñaari département département euh, Thiès ak département Mbour presque financé nañ plus de cinquante près de cinquante et quelques jeunes pour trente pour plus de trente deux millions am nañ yaakaar ni lii ñu def muy phase pilote yàlla mën na ci def jàmm ak salaam xale yi réussir ba ñu jé wa ñu wane ko ba nar ko élargir au niveau du Sénégal projet pilote projet nag li ci neex mooy dafa c'est c'est vraiment innovant espace Ndougu déjà tur wi dafa dafa innovant et mu nekk mu am boutique en ligne c'est extrêmement important la digitalisation mi ngi ci biir beneen bi mooy ni ñu lëkkalewoo ak producteurs yi parce que loolu day créer benn approche chaîne de valeur nga xam ñii bay danañ am fu écouler seen produit ñiy seen produit danañ am fu ñu jaay te dañuy jaay ak qualité parce que ay produits bio la ñuy jaay moo tax ma am yaakaar ni ah, jeunes yi nga xam ñooy démarrer projet am nañu sas bu rëy am nañ sas bu wax nañ ko tout à ci salle bi bu ñu réussir rek presque dana dana dana dana danañ ko yóbbu fu rëy te dinañ mën toog ak waa ANPEJ ñu ngi foon ak waa gouvernement bi waa ministère pour nan nañ koy élargir parce que élargir au niveau du Sénégal parce que lii ni ñu ko defee fii ci Thiès war nañ ko mën defee fépp ci Sénégal ak yu demee nii c'est-à-dire le modèle qu'il faut le financement qu'il faut apprécier et puis ñu mën ko amplifier def ko ci yeneen fànn aussi pour que mu gën a dox incha allah ñu ngi sant ñëpp. Euh, je m'appelle Ahmadou Kane je suis le directeur de Basif et l'initiateur aussi du projet Espace Nouveau bon je peux dire que aujourd'hui c'est un peu une innovation de Basif à travers des micro-franchises qui sont établies que vous voyez derrière moi donc euh, qu'est-ce qu'on fait on prend des jeunes de 18 à 35 ans euh, qui ont été sélectionnés programme avec un on les forme d'abord pour être des entrepreneurs. Ensuite, euh, on leur attribue ce, ce tablier. Bon, on les a formés déjà pour devenir des entrepreneurs. Et il y aura aussi un encadrement pendant 24 mois pour qu'ils puissent être aguerris et puissent maîtriser, par exemple, tous les détails, par exemple, pour devenir un vrai entrepreneur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tous les bénéfices qui viennent, par exemple, de cette activité-là, leur appartiennent. Exactement. Donc BASIF ne sera là que pour les accompagner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici Avec le partenaire financier que nous avons, le partenaire financier, il finance. Mais c'est-à-dire le jeune n'a pas directement le financement, il a déjà le dispositif, tout le dispositif qui a été payé par le financement qu'il a reçu. Et maintenant, il y a un accompagnement direct qui puisse permettre quand même non seulement le remboursement du crédit, mais permettre aussi aux jeunes aussi d'avoir

pour Mbour, nous avons 15 tabliers. Nous avons aussi un autre dispositif, c'est-à-dire le personnel d'accompagnement à Thiès et à Mbour en même temps. C'est-à-dire nous avons ouvert une antenne à Mbour et une antenne aussi à Thiès. Euh, déjà avant même de, l'amener ici, nous avons eu à l'expérimenter en banlieue de Dakar, c'est précisément à Guédiouaï, où nous habitons, où Basio a démarré. Nous l'avons eu à l'expérimenter avec des femmes. On a vu quand même que ça marchait. Et tout ne ferait pas 40 ou 30 ans sur, sur tablier-là. Maintenant, quelle était leur difficulté Leur difficulté était de moderniser l'activité. C'est ce que Basif a apporté comme innovation. Et l'autre innovation dans cette activité aussi, il y aura la digitalisation qui va accompagner ce processus. Les critères aujourd'hui, d'après le programme que nous sommes en train de dérouler avec euh, Enabel, c'est d'être jeune de 18 à 35 ans. la tranche d'âge, c'est 18 à bon, l'autre aspect aussi, c'est de favoriser aussi l'aspect genre.

Quand on finance, on ne finance pas le jeune en cash. On amène l'activité vers le jeune qui est déjà formé et on le suit pour que par exemple qu'il puisse par exemple vraiment marcher avec le montant d'investissement aujourd'hui pour un jeune c'est 1 450 000 qui n'est pas beaucoup et qui permet aux jeunes quand de pouvoir aller euh, vraiment avoir un emploi durable et stable. Bon, déjà l'idée qui m'est venue, je, pense que M. Dem l'a dit tantôt, moi j'ai euh, fait pratiquement à Londres. j'ai tout quitté pour revenir dans mon pays, essayer d'apporter quelque chose. J'ai vu là-bas des choses qui se faisaient, mais je me suis dit à un est-ce que je ne pourrais pas tropicaliser certaines choses Quand je suis venu, eh, Basile ouvert la première plateforme de e-commerce au Sénégal. Nous avons démarré en 2013 et 2014. Espace nouveau que vous voyez là, on l'a testé en On n'avait pas fait de bruit, mais on était en train de voir si ça marchait. Et quand on a fait un stand-by pour pouvoir l'élargir à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez et l'établi, vous avez et la plateforme qui est en train de venir.